opposé. mais kan moo leen opposé xarit ah, bu ñuy wax rugu yetu baax. Mm-hmm. commencé na may rugu yetu baax. Mm-hmm. mayu leen dara. lee yambu la koy kii même da ni muy opposé dafa dem ba sax euh, même ay xale passé da ngay ci biir surtout mu de ak photo Alioune Badara Cissé boobu dañ naan ko dindil photo bi xool mais xam naa ne jëmm ci ñu rus parce que tellement ni muy opposé dafa élégant te mayu leen dara. Mm-hmm. di wax di dénoncé naan wala courant bi mi commencé di xuy kamaj mi di wut yoo xam ne nii bu ko tegee au moins da nga ci teg baaraam. Mhm. mais yow li ngay opposé yëpp tegoo ci lu may ay kàcc. amul dara loo xam ne ni boo ko te wax wala loo xam ne fondé wul xam nga tey même bi mu wax. nii tey bi mu wax sax bi mu wax sax mën naa ko dégg yaa ngi juum man man musuma def ay révélation man seeni wax laay indi wax sax ma laaj. moom laa bi mu wax sax bi mu wax sax. non non par respect wuy ma wuy ma saa. bi mu wax sax saa wuy ma. maam kàddu par respect. arrête de dire des choses yoo xamante ne ni yow sa sa bopp yow yaay kàcc di ji ñaata kàcc. man je n'ai jamais. fait des révélations man tout le temps je pose des questions. lu tax mu waxoon nu lii mu waxaat ñu lii lu tax mu wax ñu lii mu def lii man je pose des questions musuma révéler musuma accuser musuma def dara. wala mu dem fen ñu jiñ ko nangam loolu laa mos di wax maintenant quand tu nit pour mu nit pour mu fen dafay wax ay révélation bàyyi ma man boo ma dama lay dama lay wax xam nga yow sa première opposé boo njëkk a teg non déjà dama dul opposé boo njëkk a teg non loo njëkk teg opposé ko xam nga opposé wu comme ku jee ak opposé waxi nit. Eh, saa benn ah? wax sur benn wax nii sax ci saa si. mën nga koo wax léegi jéem koo déformé waat pour pour indiwaat. samay wax laa lay mhm. a wax lu luy daaneel Ousmane Sonko. Mhm. mooy que ne saluer réel politique am. daal dina Idriss Seck amul réel politique comme euh, ni ko Sonko amee ak diw. mais Sonko ñàkk pexe la ko defee te pourtant am na lu la weddi. mais saa mi sama fan la ah, yow saa sama sortie yëpp. man penc mi waay mi man loolu la ma yàlla may. damay man du ma wax ci lu ma xamul. ku ma wax ci yow rek xamal ni gëstu naa la. Mhm. man liggéey bi ngeen di def nii du sama liggéey de mais yàlla xam amut benn problème fa toog ak yow awma ci problème. Mhm, foofu dafa wax loolu ah. loolu fi ma lay wax Macky Sall dafa ñëw ne. ñu ma toppoon Karim dana bok Sonko dana bokk. ba pare jëf luy matérialiser loolu. xam nga lu tax. dañoo ñëw Karim Wade giiñ ñaari juge dañoo ger ñu ne waay ñu bëgg a dàq élection yi ndax loolu. Macky Sall bu ne buñ ma toppoon ñan ñoo koy topp conseil constitutionnel gëm naa ne moo ko gàntal. mais amoon na arme bu mu mën a xeexe ak conseil constitutionnel su fekkoon ne Ousmane Sonko déggal na ko te Ousmane Sonko ku xool li décision bi euh, conseil constitutionnel jëfandikoo xam ko ñëpp xam nañ ne jaaru ci yoon. Mhm. parce que kenn amul fenn foo xam ne lu ko tee nekk candidat. ba pare Ousmane Sonko mbooloo mi maanaam mooy président de la république Macky Sall nekk président de la république. Macky Sall daal di yokk prérogative Bassirou Gueye njiitu OFNAC mu sañ a def li procureur sañ a def muy def garde à vue sañ laa jàpp. su Macky Sall bëggoon ko bëggoon ko ni ko kari bëggee te Karim jéem na lépp pour bokk yàllaa weddi mhm. kon bu ko bëggee woon noonu ci seenu bëgg la Macky Sall di sukkandiku prérogative ya mu jox kii ñu daal ne kii mën nañoo toppee ñooñu ne leen nañ leen woo ci yoon yóbbu leen garde à tegaat beneen cour constitutionnel mhm. kon du ñàkk pexe Ousmane Sonko encore sàmm sa kàddu wala bañ jàpp ne mën a mën a te moom loolu seedeel na ko ne bu continué woon ne mën a mën a kon Basiru du dem kon loolu Ousmane Sonko def loolu yow yaa ngi ko jël di ko même ce risque li nga reconnaître loolu sax bëggoo ko ko jox daraja ba mu jeex te xam nga ne bu neexoon Ousmane Sonko. Mhm. wala boog boo ko ignoré xaj na yaa ko ignoré. Mhm. boo gëstoo dëgg-dëgg da xam ne bu neexoon Ousmane Sonko Ousmane Sonko bokk. Mhm. kon loolu yow dèjà gis nga booy noonoo ak nit dafay bu baax nga dajale argument bañ a topp sa xol de trop. parce que xol du jàngat xel mooy jàngat. gis nga yii nag muy wax même ay accusation yoo mën a def kee wala nangam nangam loolu sois rassuré. Mm-hmm. bu am problème parce que nekkuñu ci nguuru dictateur. saa ma ñëwaat bi ñuy ci nguuru dictateur. Mm-hmm. ngay jékki-jékki gis dossier bi ñu doon teg léegi ku ñu rey ñaari doomam kenn ki rëcc ñu dem jàpp ki nga xam ne fa lañ ko fekk ci kër ko jàppuñ ko defuñ ko dara ba ko keneen ke ñu soupçonné jàpp ne moo taal kër moo saccagé kër jàmbur moom la ñu yóbbu ci kaso bi injustice yooyu ku ko mën a gis François Makabu nekk ci seeni loxo garde à vue mhm. moom ba loolu di am gisoon na lu mënoon a dénoncé dénoncé wu ko mhm. Ameth Ndoye boo amoon jom yi dénoncé Macky Sall du fi nekk ba jóge fi fit wii nga am bu amoon te demoo kaso mhm. wala kon bokkoo ci ñi ñuy traqué parce que li ngay wax Ousmane Sonko nii gisoon nga lu ko raw fuuf maanaam asaka ji nga gisoon ci Macky Sall ñun ñu gis ko ci fii li nga gisoon ci Macky Sall gisoo asaka ji ci Ousmane mhm. te yaa ngi taxawoon kii en tout cas gisuma nga koy dénoncer farouchement comme ni ko ñeen ñenn ñi doon dénoncer. di ko mhm. taxawee di wax fi mhm. ñi ko dénoncer xam nañ leen ñoo dem kaso wala ñi ko dénoncer xam nañ leen ñoo génn ñu leen di dóor tel que Pape Makhtar Diallo maam Birame Waaj. wala ku ni euh, Pape Ndiaye. Pape Ndiaye ba mu ba ba mu sanseegul bu solam mm-hmm. wala Pape Alé Niang keneen wala keneen wala keneen wala mm-hmm. keneen réew mi dafa la soxla dañu soxla ku mel ni yow mm-hmm. yow bu ñëw joomaay jalgatee wala Ousmane wala keneen ak keneen man de danaa bokk jàpp naan danaa bokk ci ñi koy dénoncé te it foofu a la sa xel bul bul wax pour wax nga xamante ne nii tey ñoom ñooy def sortie di nàkkal nit nankan say 72 heures di ko ci xaxaar ban jàngan nga ci am est-ce que tamit loolu yoon la di xaaxar daan. di xaaxar ku ci mel ne Ahmed Ndoye. ci sorti yi nga xamante ne def nañ ko ma xam nga Ahmed am na may na gars yi occasion buñ ko xaaxaree parce que ay waxam lañ jël. ñoom moom a yem ah. maanaam moom dafa wax xalaatam ci maanaam bu may wax ñoo yem mooy wax wax la xalaat man gis nga fekk affaire yi àndut ak violence rek. Mhm. man awma problème parce que wax la rek démocratie attan na lépp. Mhm. dafa gis xalaatam wax ko ci Ousmane. xam nga nag dafa nekk ay précédents yu dangereux. précédents ya. xam nga lan la déglul ma ak ñëw ak muy tuumaal nit góor jigéen dañ fi gis benn. non non non moo bindoo de tama non déglu ma nag. taxawal rek déglu ma déglu ma déglu ma man am man du ma yegg ci man di ko tuumaal góor jigéen. moom tuumaal góor jigéen ma wax lu bon. yow te nga tuumaal ko léegi. ko bu sax tuumaal ko léegi waa Sacré Cœur. bu ko essayé mais lu tax nga tuumaal ko ko li nga wax nii yëpp waxu bu ko sax essayé góor jigéen Sacré lay dëgg. ko waxee ma wax loolu bon. lay dëgg. li nga wax yëpp waxu ko. loolu di traversé sa xel bu mu jénn sa laam xam nga saa xam nga dama lay wax rek pour mu leer xam nga nag kaay ma wax la. dama lay wax rek pour mu leer lépp ba mu des ragal. wallaahi oh, non non soxla ma nga ragal ma ci soxla ma nga ñëw si boo ko waxee ma wax lu bon. man lu ñu war ta wax. man doo ma ah, dama lay wax rek boo ma waxee lu ma bon ma duma la. yaa xam loo man ti wax duma la ko wax. sama yoon nekk ci li ngay wax. bu mu bu mu sax jénn sax bu mu sax bu mu sax jénn. Ahmed na nekk fii bu mu sax nekk fii. loolu samay sama sama. yaa xam de sama état boo ma ko mayut mais lu ma ragal ci àdduna amut. yaw bu ma la doon kii lu dul saaga wala xas mënoo ko ci man te boo ma ko defee man naa laa duma ba nga tëdd wallaahi laa lay wax loolu kon ko wax du ma ko wax mm-hmm. man ci àdduna du ma wax nit ki lu ma ko warta wax parce que avant dara suñu borom laa gëm mm-hmm. te daf maa wax ma moytu tooñ mm-hmm. bëgguma laa tooñ waxuma du ma ko tooñ de parce que mën naa koo tooñ te ko mais du ma ko tooñ te di ko tey parce que Mm-hmm. mais bu dee ragal ragaluma ko wax keneen ku dul yow sax ragaluma ko. Mm-hmm. man bi fi Macky saal di nekk fii. nit ñi dañoo pare di laaj sax bi ñu paree gañe dañ ne ma saa yow ba lan mooy secret ba demoo kaso. Mm-hmm. sama plateau mas ngaa dégg fii ma toog di layam layaat. est-ce que mas nga koo dégg. man fit jarul may wan naan la dama koo am. waaye saa suñ borom may na ko. saa damay ñëw ak yow. par rapport ak ci li nga xamante ne ni moom moo di tuumaal nit góor jigéen précédent danger.